ne dinañ porter ma Madiambal Diagne ndax la mu jàpp ne eh, loolu mu songu seen client bi loolu lu ëpp la ba tax am na ay réaction yu bëri ku ci mel ni Alioune génn na wax ne ñoom force yooyu ñuy def ci ma Madiambal Diagne nañu ko def Euh, jëmalee ko ci renégociation yenn contrat yeneen yu bari donc mu indi ay réaction yu bëree bëri ci li nga xamante ni moom moo jot a am euh, mbir moomu cheikh bi naka nga ko jàngee euh, mbirum plainte li nga xamante ni avocat yi Ousmane Sonko annoncé woon nañ ne di ñu ngi ko déposé tey contre Madiambal Diagne mais Madiambal nee na ñoom bu ñu dugalee rek moom it mu dugal. j'espère que les avocats j'espère que avocats Sonko dinañ élargir seen champ d'action. munoo plainte Madiambal Diagne bàyyi fi Moustapha Diakhaté. Moustapha Diakhaté lu ko ci. moo raw Madiambal Diagne ci ay kàddu yi muy yëkkat jëmee ko Sonko. paa boobu ñaaw na la meñ de. ku plainte Madiambal Diagne 15 heures. 15 heures une minute war nga fa plainte Moustapha Diakhaté. waaw lu mu def. ci yëkkati même kàddu kàddu yi ñuy reproché ak même chose yi ñuy reproché Madiambal rek la Moustapha Diakhaté dëkkee moom. waaye ministre bi waxam jooju mu waxoon fa de ne dina liggéey ba. fileeg cinquante ans jigéen dootul jur doom bu mel ne. Euh, looloo gën a ndaw li muy wax. chaque jour mu ne la dafa fen ba rey ay génn ay xale ñu dee ci loolu chaque jour moo ko dañ ko war a plainte. waa jaxate ñaaw j'espère moom it danañ ko plainte Moustapha Jaxate muy benn. dama jàpp ne dafa yéex. nit ki am na loo xam ne as moo ko moomal boppam quand même. Hmm. Sonko mënuñu jël léppam uñu ko ci mbedd bi. amul lenn luñ ko. bàyyi mu réserver ko boppam H24 nit ñaa ngi ci deram Madiambal Diagne li muy def du journalisme acharnement la. Hmm. dafa am des comptes personnels yu mu yu muy yu muy. yu muy yu muy réglé ak Ousmane Sonko. il avait misé sur son candidat il avait misé ci ay version loolu sottiwul xolom bon na ci génn na. déclenché benn kabal di yëkkati ay kàddu bu ne di ko jëmale ci Ousmane Sonko et à un moment donné sax dafa mujj ridicule ay yéeg nga avion beeg dox nga ci tapis rouge beeg jiitu nga président ak cérémonie bi yaa ko njëkk a génn ak à un dafa dem ba tàqalikoo ak sagoom xam naa ni soriwul ak euh, li sunu borom doon wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci way si lazina kafaru bi mu koy wax na ko ñu ngi lay bëtal bay tàqalikoog seen sago hmm. ma jàmbal moom daf mel ni buy wax ci Sonko day tàqalikoog sago du si demee xel du ci am retenu loolu nag euh, ñooñ màkk yi daloon na leen ci yonente bi ba yàlla wàcceel ko way nekkaadu lazina kafaru léegi nag man li ma gëm man <coughs> mooy dañ ko war a mooy plainte bi moom yéex na am na droit plainte ko ñi naan dañ. non mais ñenn ñi ne teel na nga ne yéex. ko du état moo plainte Madiambal Diagne foog ñu dissocier loolu. pool hmm. d'avocats wu Ousmane Sonko leader de Pastef premier ministre moom ñoom ñoo porté plainte. Ousmane ñoom ñoo porté hmm, plainte. Ah, Madiambal Diagne du les avocats de l'état. pool avocat wu Ousmane Sonko loolu dañ ko yéex a def nee naa la nañ ci boole Moustapha Diakhaté. léegi nag mais pourquoi nga bëgg ñu boole si Moustapha Diakhaté moom deful dara de parce que même chose lépp lu Madiambal Diagne def Moustapha Diakhaté nga koy lu mu xëy wax moom gont na wax ñoo yam gisoo gisoo Moustapha Diakhaté jiyaadam bi bokk na ci ñi mu doon woo Madiambal Diagne hmm. yaa yaa ngi koy fàllu vidéo bi muy woote jiyaadam bi <laughs> maa ngi ciy woo ku mel ni Madiambal Diagne diw diw ne am na ku am fu lu kum ci woo mu ne ko bul ma woote Imam Sarr <laughs> bul ma wootu mukk ci sa <laughs> ma ci booleet mais daal li ma gëm mooy dañ ko war a plainte léegi nag ma jàmbal moom day jàmb rek di teg saay mais mais moom nee na dina répliquer lu muy plainte moom et gis naa ko fan yi mu ne dina jaayaat livre boobu mu xaatimoon kenn xoola amul benn demande dafa aspect dissuasif la dafa foog ni l'affaire Adji Sarr dafay mettre mal à l'aise bu bu agité ni dana ko defaat ay tirage publier ko dana tax Sonko tegee ko de côté pourquoi bi ne dañ koy plainte rek mu agité affaire boobu. non mais dafa am ay demande ay gens yoo xamante ne yow mos ngaa dox ba gis livre Adji Sarr boobu ku ko téye. déedéet jeex na. man de couverture bi man dama fa woon mosul génn sax livre boobu. <laughs> man dama fa woon musul génn ñaari livres yi musuma. mais dama dama dama gis dama gis mu ne am na ay demande ba tirage comme dafa jeexoon. dina ko tiré waat na la woon demandé wóor na yàlla je le mets en défi ma du la woon plus de deux cent demandes ci livre boobu. day wax rek livre yow livre boo xam ne yëgoon ni génn man de cover bi rek laa doon gis couverture. dóor la rek maanaam aspect dissuasif la daf foog na bu ko agité. comme que dossier boobu dafa ñoom dañ jàpp ni dafa gênant ci Sonko bu ko agité Sonko ak avocat bi danañ bàyyi plainte bi Madiambal nañ ko plainte bu demee ci kanamu yoon layoo li muy tuumal Sonko bu ko mënul layoo caabit féete ko ginnaaw point à la ligne. mais moom nee dina porter plainte. moom si lan laal bëgg laaj lan nga jàpp ne si la war a sukkandiku. moom ci lan lay porter plainte bu ma jàmbal ci lan ngay porté plainte loolu kan laaj naa la ko <laughs> bu fekkee am nga réponse bi ngay <laughs> déglu ma jàmbal Diagne non mais jàmbal dina dina porté plainte ñu ngi xaar plainte am kanaa peut-être crise bi nga xamante ni nguur gi nguur gi soppeeku na de plainte yombatul comme noonu mais crise bi nga xamante ni presse bi maa ngi ci kanaa loolu lay porté plainte mën naa am waaw parce que ñoom seeni intérêt moom gars yi dagg nañ ko waaw mu ngi ci crise ba tax na sax suba dañu wax ne ñoom du ñu def euh, dañuy def journée sans presse ma préciser fii mbokk internet yu Sunugal 24 suba la suñu programme di gën a chargé parce que ñun suba dañuy def presse ba mu neex. suba dañuy xëy du matin ah, kon yow solidarité rapport doo ko def. 7 du matin laa leen di commencé defal ay revue ci discours Ousmane sonk yu nga xamante ni daf ko doon def yenn yi mu wax ko jëmale ko ci patron de presse yi yenn yi mu wax ko ci lu bëri. ñaa leen ko génneel à partir du 7 heures du matin ñun moom suba dañuy presse ba mu neex seen journal bi yor turu euh, émission bi dina génn le dina génn suba ba mu neex donc ñun wax dëgg bokkuñu si ñu dul def euh, journée sans presse cheikh bi mhm. euh, la presse wala certaines presse décide de ne pas sortir demain ban jàng nga ci mën a am bu fekkee dem nañu ba toll fii presse bi ne crise bi ñu nekkee dañu jàpp ne nguur gi daf ci am wàll ba tax ne dañuy décider ne suba moom dañuy def une journée sans information. bon. ñun moom dañuy presse ba mu neex. <laughs> damaa yërëm presse. xam nga dama yërëm leen. dañu initier benn bras de fer ak nguur gi. mais Michel bàyyil ma ba dama lay dog bala maa continuer parce que dañu wax ci plainte boobu te waxuñu junjoon naa alinutine ci début bi mais yegg si wuñ ci. réaction bi Alioune am ci. Euh, Alioune Tine moom looluy rôlam xam nga Alioune Tine moom rôlam mooy médiateur d' ailleurs sax j'invite le président bu ko mënee def médiateur de la république ay Alioune Tine looluy rôlam loolu. ah amoon na ko ñu defoon médiateur de la ah, république waaw mais médiateur de la république dafa am ay critères yu muy lii ah, donc rien contre j'ai rien contre waaw euh, ah, dama lay laaj ñeneen ñi ko defoon yan critères la ñu am ñu Aliou Tine au moins nekkoon nañu des gens yu nga xamante ni amoon nañ benn neutralité. déedéet ay lañ ko defoon. waaw ancien eh, politicien ancien juge bu eh, kon xaaral rek. kin ko defoon kenn ki. dafa bokkoon parti politique eh, xaaral moom moo ko mujjee nekk juge Kande Kandji juge Kandji moo condamné woon Karim Wade waaw après moom moo nekkoon moom moo joxe moo joxe résultat d'ailleurs Khalifa yu de non deux élection 2019 ah, kooku mën naa nekk médiateur pourtant pourtant am na ñoo jàpp ne dafa teg ñoom dafa leen teg toor comme hmm. nag moo gën a neutre société civile moo gën a neutre ñi ngay tudd ñi waaw dëgg la de moo tax ma ne nañ ko def médiateur de la république bàyyi ko muy médiation Alioune Tine loolu lay rôlam désamorcer waaye Madiambal moom munu fi moom munu fi victimiser wu ba am fi aura Madiambal dafa am problème de crédibilité aux yeux des sénégalais Madiambal bu nee lii dafa vert hmm. sénégalais yi li ñuy jàpp mooy lii vertu dafa jaune même bu dee dafa vert. liñ ci xel ñaar. looloo ko dal mooy li daloon masalimatu kasab masalima bu nee a ngi nii sax yàlla def ko fas Madiambal looloo ko dal ci kanamu sénégalais bu ne lii dafa vert sénégalais yi na dafa jaune donte dafa ver na nga jàpp na Alioune daal waroon naa. non Alioune Tine moom il est dans son rôle moom loolooy rôle am désamorcer waxtaan xam nga fexe ba nit ñi nekk ci jàmm loolooy rôle am il est toujours dans son rôle. léegi nag man presse bi. xam nga presse bi voilà de cette presse là qui décide de. dafa initier benn bras d'affaire ak nguur gi. nguur gi mu initier bras d'affaire amu ci soutien wu population bi. Hmm. bi presse bi daan def journée sans presse muy safe daf fekk askan bi daan solidaire ci seeni combat moo tax bu ñu defaan journée sans presse muy safe waaye presse bii bu defee journée sans presse du saf askan bi ndax presse bi dafa bëgg woo askan bi. ak rôle bi presse bi liggéey yëpp. waaye du saf kenn pour ñu am ay alternance. du saf kenn xam nga lu tax en 2012 et en 2024. du ñoon la presse a joué un rôle de. loolu du presse bii de ñu joué woon rôle yooyu du presse bii de. xam nga presse bii di woo sénégalais yi xam nga journée sans presse mooy da nga bëgg alerter population bi ci sa jafe-jafe. journée sans lii nga taal télé ñu defal la. xam nga loolu benn écran noir. waa léegi dama lay laaj. Hmm. loolu lan lay changer ci quotidien sénégalais yi dara bii sénégalais yi di dee ci tali bi. Hmm. ñu di leen rey en mars deux mille vingt et un bi dafa gumbawu tëxlu woon